ahousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi rabilalamin wasalallahu ala seydina wa maulana muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimi wa ummati wasalama taslima asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk julli ci mbokk taalibe yi leen di nuyu di di ñaan a jàmm ak tawfeex ak taysir di ñaan yàlla mi borom jàmm may ñu jàmm ak tawfeex kon tey dañuy ñëw eggali science de lecture yi nga nañ ko bu ko a a am benn saat buñ ci daal di koy jéem a liiral ñi nga xamante ni ñooy ñuy topp ci li nga xamante ne mooy seen bi di Watu TV bu ko defee rek bu fekee ni dangay ngay doog a tàmbi ci liggéey bi wala ngay seetaan suñuy vidéo lu ci bëri eh, ñi ngi lay ñaan nga abonné wu ndax loolu tamit dina nekk loo xamante ni mooy tax ñeneen ñi di gën a mën a gis vidéo yi waaw bu ko defee rek eh, tey dinañu gën a dooleel ba nga xam te gën a mën a am dëgër laay ci liggéey bi waaw ndaxte buñ sañoon moom lépp li ñuy def rek même bu fekkee ne lu tuutee ci baax am ñoo xam te ni mën nañ cee jëriñu ñu mën cee jote comme nu ngeen ko gisee noonu ci image bi ñu ngi am surat bi nga xam te ni mooy suratul A'la A'la Makkiya lii mooy surat A'la ñu gën ko xam ci sabisma kon tey moom leen indil comme ça ñu jéem koo détaillé rek comme niñ ko tàmmee di defee bismillah fii ñu ngi am li nga xam te ne mooy formule d'ouverture mooy formule bi nga xam te ne mooy tijji saar yëpp muy bismillahi rahmaani rahim lii moom daanaka képp koo xam te ne tàmm nga di seetaan vidéo yi rek amatoo ci jafe-jafe ñu ñëw ci li nga xam te ne mooy aaya bu njëkk bi ñu ngi commencé li nga xam te ne mooy araf biñ naan la lettre siin siin ñu mas ko fatxa muy sa fii nga am la lettre ba ba bi moom moo nekk nii mel ni genre bëñ am tomb bi ci suuf noonu lii c'est la lettre ba nga gis ni dafa am kasra waaye ci kaw dafa am ab sadda donc ba bi ñaari yoon lañ koy liir nga am sab bi sab bi fii nga am la lettre xaa xaa bi am kasra ci suuf mu nekk xi fii nga am euh, li nga xam te ne mooy alif am hamzatul wasl ci suuf li nekk i fii nga amaat la lettre siin mu am mu am sukun muy as donc boo ko boole mu nekk is ma fii nga am la lettre ra ñu daal di koy fatxa mu nekk ra fii nga am la lettre ba encore ñu daal di koy sadda mu am tomb ci suuf mu am kasra mu nekk bi rab rab bi fii nga am la lettre kaaf ñu daal di koy fatxa muy ka fii nga am la lettre alif mu am hamza bi hamza bi ba léegi ci kaw léegi nga am laam am alif ñu fatxa ko fii mu nekk laa fii nga am la lettre ayn ñu daal koy sukkoon muy aw fii nga am la lettre laam ñu daal di koy fatxa mu nekk la yaa bi ñëw xaw kaa xëcc tuuti mu nekk la arla waaw donc arla bi a bi nekk ci laam alif bi la ñuy jël boole ko ak ayn bi ñu sukkoon muy arla fii booy liir boo defee liaison bi da wax kal kal kal rabbikal axla boo boole nga am sab bi xisma rab bi kal axla sab bi xisma rab bi kal axla sab bi xisma rab bi kal axla sabbi xisma rabbi kal axla sabbi xisma rabbi kal axla fii nga ñëw nga am xam al alif maam hamzatul was ci kaw nga nekk nga wax a a fii nga am laam bu amul bu amul maska amul dara fii ñu wax al la al la la donc nga am fi nga am la lettre zaal ñu kasra muy zi lii pour xëcc kasra bi allazi allazi allazi allazi fi nga am la lettre xa ñu fatxa ko muy xa fi nga am ñu daal di koy fatxa muy la fi nga am qaaf ñu fatxa ko muy qa xa la qa xa laqa allazi xalaqa allazi xalaqa allazi xalaqa fi nga am faa ñu fatxa muy fa siin fatxa sa waaw mu am ci suuf masku tomb bi mooy al imala waaye dafa am sadda moo tax wax fa saw wee fa saw waaye al imala bi nag en général buy ñëw day ànd alif ak yaa waaw lii nii pour moom mooy wane ni danga koy xëcc de deux temps fa saw waaye waaw ba nga bañ wax wee bu daal di dëgg fa saw waaye fa saw waaye allazi xalaqa fa saw waaye allazi xalaqa fa saw waaye fa sawwaa allazi xalaqa fa sawwaa fii nga am wa nga am alif am lam léegi foofu na koy liire rek mooy wal la walla zi walla zi qad fii qaaf la ñu fatxa ko muy qa nga daal mu sadda nga am qad nga xool fatxa bi nga wax da qad da qad da ra fa aha de faha de faha de wallazi qaddara faha de wallazi qaddara faha de walla qaddara fa hada wallazi fa qaddara fa hada walla zi waaye zi bi danga koy xëcc ndax daa amaat madd ci kaw nga xam ni doo yam ci deux yi rek waaye danga koy xëcc wallazi wallazi wallazi axraja axraja al mar eh, mar eh, al mar donc eh. ayn buñ ko commencé kasra day nekk a moo xëccee mu nekk axrajal mar axrajal mar'aa axrajal mar'aa axrajal mar'aa wallazi axrajal mar'aa wallazi axrajal mar'aa fa ja'alahu fa ja'alahu fa ja'alahu fa jaalahu xayn damma xu xu cha danga koy xëcc nag le sistan xu cha an an axwa axwa axwa xusa an ah waaye waaye nag da koy boole boo bañee mu dagg mu am dans pause bi noonu ci diggante bi moo tax ngay wax rucaa nax waa rucaa nax waa voilà maanaam nuun bi nekk ci tanwin bi ngay jël boole kook ab yi ali alif bi nga xam ne alif bi nii de liaison la lu xam xàmmee mooy fatxa bi day takkaloog alif bi waaw moo lay wan ni da nga leen di ñoom ñaar da nga leen di boole nga wax ونحوه فجعله غثاء فجعله غشاء نحوه voilà donc fii euh, voilà donc maa ngi def erreur sax fii nii sa sa donc nga am da nga am fa fatha fa jim fatha ja ayn fatha ha laam fatha la ha dammahu ñu xëcc ko ak waaw muy hu fa jaalahu fa jaalahu xu xu xayin damma xu siin siin siin fatha xu saa xu saa a nax nax waa fa jaalahu xusa xusa a nahwa donc fii nag siin bi ni fii c'est boo boo def attention rek di nga ko jaawale ak siin waaye fii sala sa boo waxee a ba ta sa sa sa donc fii xusa a nahwa xusa a nahwa xusa a nahwa bokkul ak rucha nahwa wala rusa nahwa bokkul donc fii c'est rusa nahwa fa ja'alahu rusa nahwa fii da am siin damma sa siin fatha sa nuun damma nu qaaf sukun aq ou bien nga wax uq benn la rek qaaf sukun uq parce que accent bi rek ngay xool ra dam kasra ri sa nuq ri sa nuq ri hamza damma u donc fii gis nga di mel ni yaa ah, waaye dafa ñëw rek pour boot daal di boot hamza bi fii hamza bi la liir u kaaf fatha ka sa nuq ri u ka sa nuq ri u ka fa waaw fii faa la ñu fatxa ko muy fa lam alif ba léegi day nekk la fala fala fa fi nga am ta taa ñu daal koy ñu daal di koy eh, fatxa muy ta nuun bu amul accent da nga koy liir tan tan tan sa tan saa donc fii siin la ñu daal koy masque tomb ci suuf alxima la nga wax see donc du saa mais see fala fala tan see fala tan see ñu daal ñëw ci aaya bis wala ñu reprendre ba léegi sa nuq ri uka fala tan see sa nuq ri uka fala tan see fii nga ñëw nga am lettre composée alif hamza ñu kasa ko muy i fii nga am la lettre lam alif mais ci am sadda moo tax fii da ngay wax illaa il laa illaa ma cha donc fii chine la da ngay génne comme ch français cha cha a fii nga am a fii nga am alif Euh, ak siñ de liaison bi ak hamzatul wasl donc fii boo ko taqalee directement day nekk allahu allahu waaw léegi nga gis fii signe dara bi boo neexee nga daal di taxaw ko donc ngay am illa macha allah boo bëggee taxaw foofu allah ngay wax boo bëggee continuer nga nga prononcer accent bi allahu illa ma shaa ba léegi yaa ñu daal di koy fatxa muy ya ayn ñu sukun ko muy a ya mu ya mu yaxlamu yaxlamu al al ja a ja ja ja ja donc aha buñ ko laha buñ ko daal sukune day nekk a a donc day nekk ja ja nga am ra fatha ra waaw fatha wa mm. miim fatxa ma ñu daal di koy xëcc muy ma maa maa yaxlamul jahra wa maa ya ax ax yax fa yi faala ma mas ko tombi suuf yax fa yax fa yax fa yaxlamul jahra wama yaxfa yaxlamul jahra wama yaxfa mu nekk boo boole lépp illaa ma shaa allahu innahu yaxlamul jahra wa ma yaxfa léegi bu la neexee nag da ngay taxaw fii tuuti nga ko continuer moo tax boo ñëwee fii da ngay déglu ba ñu ne illa ma sha allah innahu yaxlamul jahra wa ma yaxfa illa illa ma sha allah innahu ya'lamul jahra wa ma yaxfa fi nga am waaw ñu dafatxa ko muy wa nuun damma nu yaa fatxa yaa nga am siin kasra si waaye siin bi dafa am sadda moo tax nekk yas si yassi wanu yassi ru ka wanu yassiruka wanu yassiruka lil yusra lil yusra wanu yassiruka lil yusra wanu yassiruka lil yusra wanu yassiruka lil yusra fi nga am fa za nga am kaaf mu am sadda ak kasra donc day nekk fa zak fa zak fa zak kiri fa zakkiri fa zakkiri fi nga am i ak li ak nun fa zakkiri après nga bora waxaat in moo tax ñu ne da ngay wax directement fa zakkirin fa zakkirin loolu nooy xamee ni noonu nga ko war a waxee mooy da gis ni alif bi dafa taqaloo ak li mel ni kasra dañoo taqaloo moo tax foofu da ngay xam ni da nga leen di boole fa zakkirin fazakirin fazakirin waaw waaye rin bi kii bi nii nuun bi boo xësee wax benn yoon rek fii da ngay ñëw wax benn yoon waxaat waxaat fii nuun bi day mel ni bii daal moo fi nekkul waaw day mel ni bii nekk fi boo ko defee nga ñëw ne fazakirin na faat fazakirin rin nafaati <coughs> léegi fii nga am alif am laam article bi ñëw nga xool bi ci lettre bi ci topp mu am sadda donc da ngay lié donc fii doo liir lii donc da ngay wax ta taz taz zik re taz zik re nafaatis zik re nafaatiz zikra waaw kasra moo ko kon tiz ngay wax doo wax taz tiz zikra <clears throat> fa zakkirin nafaatiz zikra fa zakkirin nafaatiz zikra fa zakkirin nafaatiz zikra